mbokk yi daal maa ngi leen di sant di leen gërëm Mansour waaw mu ne dafa am benn waay mu ngi ci tànt mi mu ne dafa dégg sama waxtaan muy wax may wax ci maam Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti ma ne maam Cheikh Omar Fouti yu deewul mu ngi dund ma ne Inde la nekk. fi muy jaayee sax xam naa ko mu ne mu toog ak benn kilifa kilifa gi ne ko maam Cheikh Omar Fuuti yu dafa faatu dañ koo jam ci faar ñu suul ko maasale bàmmeel ba tubaab bi ñëw ñu bañ tubaab bi xam fi bàmmeel bi ne ñu ne booba tubaab bi bopp bi la soxla woon mu ne maam Cheikh mar nii la jaar mu ne looloo tax ñu ne dafa dispari mu ne lëndëmte googu mu bëgg ci ay leer leen dafa dajeeg noonum Cheikhul Haaj Omar dafa dajeeg ku kontar Cheikhul Haaj kooku bu dee yaa ngi ci tànt bi àndal ak moom ñëw sama kër ma wan la seexu Omar moo gën a gaaw may ma rek billaahi wala waaye lu mu ci góobee gar ko waaw may ma mu ne Mansour Diaw nee na mu ne waxal kooku ne ko waaw kañ foofu laa jëm si woon alxaaji Abdul Aziz Dabbaax radiallahu taala anhu ànd naag alxaaji Cerno Saidu Nuuru Taal ñu jógee Ndakaaru wala ñu jógee Medina jëm Dakar mu ne ko Abdou ñoom ñaar rekk ci oto bi kële toog solul yére su mil say yére solal ko jaaral ci digg ba tubéyam la ko waxoon na suma waaw waaw loolu la rek pour nit ñi xam biñ delloo ba yegg ci kër gi ñu abal ko mbubb mu sol ko góor gi di waxtaan ak moom ne ko Abdou ki la abal mbub mi xam nga ko mu ne ko mooy Cheikh Omar Fouti beneen bi xam nga mën nañ ne Cerno Seydou Nourou dem na xaj ma si dama wax bi gën a garaaw badukaañ ji xanaa xam ngeen ko ku jur badukaan ji dem leen ci moom ngeen laaj ko lii may wax dëgg la wala du dëgg di ko wax boo jëlee kàddu Badou Kandji Alaaji doo toog ci jàkk sa woo ko mu ñëw mu jox ko enveloppe def ci xaalis ne ko demal ma dëkk sàngam ci Fuuta palaas sàngam boo fa toogee ab diir dina yor di nga gis ko am ay gàtt di sàmm bu ñëwee nga joxal ma ko enveloppe bii Badou dem fi ko góor gi wax diir bi mu ko wax bi mu jotee genn góor ñëw di sàmm ay xar bi ne ko sam papa nee moo la ko jox dal di ñibbisi góor gi ne ko badu xam nga ci ku ma la yónnewu mu ne ko dee mu ne ko sa maam Cheikh Umar Fuuti mu ne ko papa lu tax waxoo ma ko mu ne ko bu ma la ko waxoon doo ko gis moo tax ku dee lu muy doyee enveloppe Cheikhouna Tidiane li muy baax baax di xatmul awliya soo ko gisoon nii yaqazatan nii nii nga toog mu toog soo ko joxee guro du yëy soo ko joxee miskit du lekk soo tegee ceeb du dugal loxoom ndax mu ngi ca alamul barzaq rasulullahi moo gën ñépp lu waaye am ci barkeem nga ko amee soo ko gisoon yaqazatan boo ko tibbee jox ko ceeb du lekk boo ko joxee tàndarma du lekk boo ko joxee ndox du naan moom nag mën na laa jox ndax mu ngi ci alamul barzaq ku dee du lekk te Cheikh Umar boo bu ñu ñëwee gànna la moo leen njëkk a wax toggal nangam Babacar Njaay ci waawan bii la nekkoon ñu bari xam nañ ko nijaayam bu bokk ak yaayam ndeeg bàyyi at bu jot Cheikh Umar daf ko daan gane fii ci Saalum hmm? waaw kon fi ma ciy jeexale Mansour dafa am la tax ma ne mu nga Inde ngeen mbaal ma Inde la dëkk alwaar la juddoo waaye intixaal dafa toxu xaal bi mu nekk moo tax mu toxu te Inde mooy cosaan la àddina moo tax mu dëkk fa waaye tour du monde lay def chaque jour bés bu yàlla sàkk dina wër àddina bi wërngal këpp door a delluwaat bi muy am tiit tal tayul ardi boobu lay jógee euh, màkkatal mukarram di ñibbi diggante màkk ak Sénégal quinze minutes la ko Cheikh Omar di def parce que dafa am tayul ardi mën naa la wax ay niti niti nit ba Bachirou war na ma Cheikh Omar yaqazatan moo tax moom ne la mën naa koo wone Cheikh Omar Cerno Cheikh Omar doomam dem nañ fii ziyaara fii eh, fii Cheikh Omar demoon ci Casamance nu mu tuddati dëkk bële ci Casamance te ñu ne Cheikh Omar jaar na fa euh, Cap Skirring ca jullikaay ba dem leen ngeen laaj Cheikh Umar bu Cerno Cheikh Cerno Cheikh bu Cerno Bachiru moom ak Cheikh Umar an bu kuddu directeur u kuddu ñoo àndoon ak yeneen ñaar parce que oto yi dañ fees ñu ne leen dem leen ñun ñu dox Cheikh Umar fee ñu leen yàqazatal ñu waxtaan ak ñoom ba yegg si ci kër gi Cheikh Cerno Cheikh moo leen ni kii Cheikh Umar ñu yegg si ci kër gi nuyu na Bachir rek mu ne leen mbaa nuyul ngeen ma sama maam Cheikh Oumar man li may wax kañ ñoom ñëpp a ngi dund waaw bi kañ ñi koy gis a ngi koy gis yàqasatan ñii gis yonent bi ñu ngi koy gis yàqasatan si may may ma waaw kay may ma may ma in bi waaw kay jërëjëf jeex na Maodo Serigne Maodo si bokk na ci ñi gis rasulullah yaqazatan moo ko wéy mais ñi nekk barzaq gis leen du dara ci sa pas-pas la aju ak sa yow sa sa sa xol ca digganteeg sa borom waaye du kiiraay du kiiraay Cheikh Omar fuuti yu xayyun laa yamut ñi bokk ci ñiy dund te duñ dee ci la bokk dafa am ñu yàlla wax ne yawma yunfaxu fi suuri fa saxiqa man fi samawati wa man fi l illa man shaa allahu beneen bi mu ne illa ma shaa allahu ñaar yépp la yàlla indi man shaa allahu ak ma shaa allahu wali yu xadir lu tax nga nangul ko ko te bañal ko Cheikh Omar wali yu xadir deewul te yonent bee ko loolu dinaa ci def waxtaan spécial incha te bu déwénee sax nañ ko ko def dégg nga bu déwénee nañ ko ko def moom moomu na ñëw toog moom moomu na bu boobaa na ñëw toog bu ñibbee dina gis lu mësul gis dégg nga moom moomu bu boobaa na ñëw toog bu ñibbee guddi gi mu njëkk a tëdd dana gis lu mës a gis Cheikh Umar a ngi fii Cheikhuna Tijaani junj na ko Mahdi yu bi Cheikhuna Tijaani di wax ne na ngeen seen mbokkum taalibe tiijaan la dina jël tariqa bi Mahdi yu boobu bésu altine lay doon dimisqa lay doon ca jumaa ja lay doon moo ko waliyu Qadir ak Cheikh Umar Cheikh Umar moo koy jox tariqa bi à suivre ba déwén ma wax leen lu tax